العالمين خلافة ملكية حلى آدمي خلافة ملكية متى أدركتنا لي زمان بلية وجئناك نشكوى نفوس صدية jërë ngeen jëf euh, mbokk yi comme euh, ni ñu ko euh, teewee nii macha allah Serigne Baye Diop Seck yaakaar naa buñ la ci interviewé loolu dafay daal di yella lool moo di dañoo taseek teraanga joo xam ni doomu Thiénaba moo ko indi indi mu mel ni waajal gàmm gi ñor na ko mu mel ni moom itam mi ngi wuy si kilifa yi sang bi lu ciy sa jàngat alhamdulillah salaatu wasalaam di teg nuyoo bi ci loxo Baye Sëñ Assane Seck ñu koy ñaanal yàlla mu dolli guddal fanam dolli wéram teraanga ji nga xam ni teraangay islaam la muy waajal gàmm te amuñu bis bu ko ëpp ay maamam sosoon ko fi ay baayam ñëw sos ci ay magam ñëw sos ci ba moom mu ñëw tey ji ayee wattu sees bi lépp luñ ci mës a am ci ndab rek yàlla na yàlla may ko ji lu kawe suñu jot ñun ñëpp teraanga ji nga gis nag di doomi cana ba indi ko fi duñ ni guléet fépp foo xam ne chef de village mos na faa wootee set setal ci waajal gàmm rek kenn jiituwu fa maamadu waaye lépp loo xam ne jëf na ko ren day fas yéene déwén ja gàccaal li nga xamante ni moom la def ren mm-hmm. te baayam di bàyyi xonn ñang mm-hmm. soon ci seexu canaba mum fi musa fek rek ba taxone mu yëkkati lu toll ni canaba tek ko ci loxom mhm. kon su suñ mamadou jeffe jëfee ju melni du bet ken mhm. comme Baye dam beng sen wajur te tay ji ngeen jël relève bobu yow ak sëñ Maamoor ak ku melni ni ak sëñ djuga ak sëñ Góora ak sëñ Maas kon ñu ngi delo kàddu gi ci chef de village boole sante gi ci Mamadou ak ñaan gi ak Góora Njaay ak Seexu Ndongo mi mu andal yëpp di sante presse be ngeen ñu fek ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu eh, waaleykum serigne baye monsieur le maire dafa melni Sakar sa kàddu dafa daanu rek la nga doon wax am lu ciy feeñ waxoon nga ni kat woote na nu nañ loxo te kilifaanu jox ndigal lépp dana bari te li firnde la ci. waaw jërëjëf sëñ euh, may daaneel kàddu gi gisuma woon lii ak bariwul waaye wajuram sëriñ xonn ñang sama magla. sama papa bu masaa ñëw cana ba te fekk man maa ko andi mu and ak seigne Ibrahima ñew bu ñibbi si jaayaan au lieu kon mëna ñew xon na ñang mokoy koy sama papa baykat la won bu mag su ma saa ñay man ca tol ya xon na ñang ca lay bok kon Mamadou su defé li kenn du ko dañ koy sante bu baax rek diko gëreum diko ñaanal yalla yalla nako gëna man yalla jappalé ko yalla nako yalla musul ci ci euh té musul ko gis limay def ndax jamono yoo xam ne gis nga li ngay def rek léeg-léeg da ngay tàyyeel parce que nit ñi li gën mooy bul xool nit fay la xoolal pay ak sunu borom soo ko defee rek loo def tey bu subaa da ngay def leneen lu ko parce que yàlla moom moo mooy fay te ko mu fay di nga rus kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla gën a dimbali yal na ko yàlla gën a jàppale lii nga xam ne moom la man tey ñi ngi ñaan yàlla bu déwénee yàlla na nekk camion boo xam ni da koy gaare fii képp ku ñëw ci gàmm gi lépp lu ko ci war mu def ko. jërëjëf monsieur le maire euh, borom ni initiateur u set setal bi ci waajal gàmm Serigne Alassane Niane Seck mii taxaw la Serigne Alassane danga daan def buñ ca jëmee yaay dajale say dërëm ak say ku la ca fekk nga dugal ci ñu fexe añ fexe ndox fexe nit ñi bëgg tey nag nit ñaa ngi ñëw donte sax kenn yónneewu leen téléphone. waaw fa jisaakumullahu di ko wax ñëpp nag euh, sëñ Baye Diop kàddu yi mu wax ak kàddu yi sëñ Talla wax ci Mamadou doy na sëkk Mamadou sant na moom amee sant bu amee cant sant ko day yomb dañoo wax ni nit bu defee lu mat cant sant ko day yomb bu deful lu mat cant nag boo ko santee day rus waaye sunu waajur baay Talla Gueye da daan wax ni kenn ku ne bu def àggale bu demee àggale la bàyyam defoon rek waar yu tool mat Mamadou nag waar yu bàyyi xoon yoroon ñu ngi ciy bay kon jaajëf waaye Baye Ndiouga wallaahi doomu canaba bu bu bu bu bu bu confirmé sa doomu canaba te ko te jàpp ci set setal bi ak lu canaba yëngu nga yëngu ci doon na la ku ci dul yëngu. Euh, masoon nga wax ci buntu jumaa ji nga ni doomu canaba na nekk soldaaru ma Ahmadou Ndaak mu jatu di déglu. boo gis rek soldaaru maam Ahmadou Ndaak la mag ñi préparé nañ ko ba sonal ko tani fa mu am général boo xëy nag day dajeeg moom na tooj te taxaw rek ku tooj te taxaw rek mag ñi rangasi la mag ñi xëy xëy def ci xelam ni deg ni kii def leen ko imam kii na dem ca morgue ba kii na dem fee kii na dem fee waaye na fekk nga préparé ba taxaw seet bi ci rek waaw ñu ci la ñuy demal nommé garaati wali yi ci lay nommé xutba yi ci la ñuy nommé lépp kon Mamadou am na cant ndax yàlla lii teraanga la waaye teraanga yi diine la nag mm-hmm. teraanga joxee jëmul ci poosu kenn mm-hmm. jëmul ci kër kenn mm-hmm. teraanga yi diine la yàlla ko gën a man waaye yàlla na xale yëpp am doole ba bu ñuy ba bu ñuy set setal ci wala leen xew kat kat yi dee gaa ko naa may ma wàcc may ma ma wàcc yàlla ko yàlla def ci dara yëpp ñëpp am xew sallallahu alayhi wa sallam sëñ Gora euh, message bi noo ko déggee sëñ am na am na lu mu wax moom sunu ne ci poste de santé mom dem di japp lu xew rek mu ñu manam kuy feñ rek kuy feñ rek am nga cant kuy fay am nga cant euh, chef du village moom la wax euh, sëñ Gora yaakaar naa message bi leer na te ci jeunesse bi la jëm mooy kenn ku nekk rek na nga pare xam ni bis maam Ahmadou nag dina la soxla euh, sa nooy nooy jàngatee message boobu Gora. waaw baa Ndiouga ginnaaw bi ñu sant yàlla jull ci Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam di sant suñuy wayjur ñu ngi nuyu la xalif général la Alassane Seck di ko ñaanal yàlla na yàlla defal ko jàmm yàlla defal ko réussite bi nga am te ni ay maam ay baayam am nañ ko mam bu ko ëpp. ñu nuyu la chef du village Serigne Alassane Niana yàlla def muy sunu bu sunu wéjur du sunu papa du sunu xarit euh, di am mbégte bu baax ci teewaay bi ñu teew fii ci journée bi nga xamante ni moom la ñu organisé di seetal di préparer gàmm Eh, di jaajëfal d'abord Mamadou ñang mi nga xamanteni tay teranga yi moko andi te def na ni eh, ñun moñu ñu ak mak waye dañ day suñu xarit tay duñu laaj conseil fu mu toll eh, man ak Cheikh ndong mom nga xamanteni mu ngi ne nungul nungul feñ lim def rek moy wone ni da ko def ngir yalla te yag na ko def daaw defal nañ ko ño andon def ko te ñu ñuar ko yalla ñu ko fekk ay at yu bare bare bare lu mu man tan yalla man def ko mu man ko man lu ko ëpp ci at yi nga xamanteni mom ni ñew li nak dafa am solo te yalla tam def ñu def yor ben cër muy walu santé ñu jité comité développement sanitaire bi fii kon def naa ne lii ñu def nii kon dafa bokk ci li nga xamante ne nii mu rôlu ñi nekk ci CDS la parce que tey ñoo nekk le cordon ombilical bi nekk entre euh, le poste ak la population kon sëñ Alassane ñoom initiative bi ñu am nii def naa ni ñun ñi ne ci wàllu santé lañ ko lañ ko defal kon du ñu def lu rafet lu ko di delluwaat nekk ay taalibe comme ni ni ko sunu maam yi nekkee woon gën a laxasuwaat euh, euh, incha allah lépp lu Thiénaba woote ñu def ci la ñu man sunu poos ak sunu temps bi bañ ko fekkee def naan daal lii daal baa njuga lu ñuy rafetlu la da na ni gàmm gi daal ñu ngi ciy commencé dugg ndànk-ndànk di ñaan yàlla na yàlla dugal ñu teeg bismillah rahmaan rahim ñu génn teeg alhamdulilah rabbil alamin euh, sëñ Gora dafa mel ni léeg-léeg gis benn jeunesse ci yenn këru diine hmm. ñuy tiitaroo ni man Euh, këru diine sangam laa bokk mhm. mais fii c'est un peu le contraire da ngay gis koo xam ne donte mi ngi tiitaroo Thiénaba mais day seet ban apport la mën a indil Thiénaba te benn geste ngi bu koy wane loolu mooy loolu mooy solo si parce que nit ki tam bu fekkee da nga nekk ci ab dëkk da ngay fexe ba lépp luy acte wala lépp luy lu baax nga dugg ci sa loxo def naa ni noonu la Mamadou Niang mi def am na ñeneen ñoo xam te loolu la ñuy def parce que nit ki ñi mën ki am ki am alal mën na indi alalam ki am dooleem parce que bu gis fii ñëpp tey ku ñëw am nga loo indi moo xam lu ñuy xéewaloo lañ indi moo xam sa doole nga indi moo xam leneen

kon sant ak ngërëm dafay euh, yell lool mbokk yi ma di leen fàttali ñu ngi ci wanagu kër gu mag kër gu mag euh, di fi nga xam ni xalif général euh, Baye Serigne Assane foofu la nekk di xalif général lu Thiénaba ñuy waajal gàmmu 142e édition Thiénaba mbokk yi ma di leen fàttali mooy dëkk bi nga xam ni ci Sénégal ci li ñu xam mooy dëkk bi njëkk a dalloo jumaa joo xam ne dañ koo tabaxee ciment 1906 maam Talla sekk way juru xalifa bi fi nekk tey taxawal ko 1907 mu egg ñu tabax ko ci 6 mois. loolu nag di ay taxawaay ñan ñoo ko doon taxawee ay ndaw ak ay jigéen lépp nag lew maam Talla sekk nett nañ ni wax nañ ko ba tey mooy sama jumaa ji kat lew na te baatu lew na. dafa am lu muy firi mooy dërëm bu neexul yàlla kon dugg ci loolu nag moo wàccaat ci njaboot gi ba lépp lu xew kenn ku nekk yaa ngi xalaat foo mën a nekk loo mën a am ak loo mën a xalaat ak koo mën a am ci wóllëre indi ko ca cana ba mu def ci loolu ngay bëgg kon sant ngërëm dafay daal di ñeel ñëpp waaye sant ak ngërëm ñeel na presse bi nga xam ni tam ñoom ñoo leen ko fas yéene di leen ko digtal di leen ko jottali di leen ko wan ba fépp fu ngeen mën a nekk TV di Thiénaba 24 di Gindiko FM Gindiko TV ñoom ñëpp incha allah nii ñu ko tàmbalee tàmbale nañ ko ci CLD ba CDD ba CRD bi ak tey jii nga xam ne mooy set setal bi fas yéenee nag waajal CND bi ministère de l'intérieur war a nekk jeudi 7 octobre bi ñu dëtmal ñuy ñaan rek buñ duggee ci gàmm gi yàlla nañ ko continuer ni ñu ko doon defee génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin ndam lu ci xalifa masaam bi ci bàyyi seriñ Assane Seck di am yàlla na ko ëpp foofu te ànd ko ak nun asalaamaaleykum رأفة ملكية